commune boo xam ne bi euh, ci jamonoy euh, ju yàgg ji euh, dafa nekkoon commune boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu mbay fa lañ ko doon fa ko doon natt si di ko fa seet mu nekkoon commune bu yàgg ci cosaanu mbay Prodac nag bi mu ñëwee bi maire di doxak wax ba yàlla dogal mu gisanteeg directeur Prodac ak ak président de bi ba ñu accordé foofu Prodac bi nekkoon na lu xaw a lu ko xawoon na jaaxal tuuti bi mu egsee ci ñu xamul woon parce suuf bi moo nekkoon lu xaw a posé problème euh, mais biñ ñëwee yàlla def ñu am euh, dëkk yoo xam ne seen suuf bi yaatu na xaw na euh, bari itam ñoom itam gis nañ ne mbay mi daal buñ ci buñ ci jógul du du sotti ci la ñu waxoon 1000 hectares waaye ñoom ñu yàlla dogal muy diggante Woore Warkeere ak Touba Fall ba laa Laaneen quatre villages yooyu. Euh, ñi fi am ay tool nangoo joxe seeni tool ci joxe bu tàlli parce que ñoom ñoo woote sax ne ñun am nañ suuf bi ñu newee ñu am farfa am 2000 hectares. depuis ñeenti at ba euh, jëm bëgg dugg juróomee at presque euh, ñuy laajte guddi ak bëccëg ndax kañ lay commencé kañ lay commencé mu doon loo xam ne lu ñu yàkkamti la sawar ci lool pour mu mën a commencé ndax loolu daal seen yitte la.